ginnaaw bu ñu sante le coordonnateur Mamadou Mbodj ci appel bu rëy bi nga xamante ne lancé na ko képp koo xamante ne bokk nga ci réew mi te am métit ci li li fi xew sàcc ndënd nag yomb na waaye foo koy tëgge li ñuy wax président Macky Sall lu yomb la mooy na mu defoon ca xelam di waajal ay bagaasam mu wéy di leen waajal ndax amul kenn ci réew mi ku d'accord le 3 avril bii di ñëw incha allah Macky Sall di desaat ci bopp réew mi loolu kenn du ko négocier ci réew mi ba ca topp mooy ku mu neex mën ngaa jël sa kàddu wax ko ni la neexee soo faree ca moom mais li am solo mooy li xewul fii ci 2000 2000 lay tàmbale ba ñoom alternance en 2012 ñu amaat beneen alternance 2024 bi Macky Sall du ku ñu nar a xañ alternance bii ñu jëm incha allahu taala ba ca topp dafa mel ni daal ku yor benn fromage di ko grignoter ndànk def na ko ca juróomi at yu njëkk ya bi mu jëlee réew mi ne juróomi at lay indi mandat bi daal di jëlaat defaat ay subterfuge ba dem. ba defaat ca ñaari at bi mu ñëw toftal ci juróomi at xam naa doyalul ci pale bi mu ne léegi il faut que muy coof ndànk-ndànk soo xoolee coof bi mu coof sax daanaka su élection yi nekkee le 15 décembre moom mi ngi bàyyi pouvoir bi février dafa mel ni amaat na at te kenn waru ko may même simili bi gën a ndaw mu toogaat ko ci bopp réew mi donc li ñuy wootee dans la sincérité de l'action ou des actions que nous allons mener dañuy woo tous les Sénégalais

beneen ba ca topp beneen ba ca topp te am solo lool mooy président Macky Sall su amee problème ci biir famille am nañu ko régler seeni biir famille ñun nous avons nos candidats te am na lu rëy sax lu am ci ñun mooy nous avons été très généreux ñun ñi nga xam dañu recalé ñu d'accord ànd ak candidats yi nga xamante ne tànn nañu leen ci sunu biir loolu c'est l'occasion d'ailleurs de saluer la grandeur du président Ousmane Sonko ci li mu def xoolal yàgg nañ fi tëj yàgg nañu fi tëj ay nit saa yu leen tëjee duñu nangu mukk seen Sogo nekk candidat ci réew mi c'est la première fois nga gis nit ñu tëj ko mu am générosité bàyyi nga topp ca moom ne nekk leen candidat loolu c'est à saluer beneen bi ci topp nag mooy un message que je lance à tous ces prisonniers yu nekk ci ci ci les geôles de Macky Sall li ma leen di wax mooy seen yaakaar tasagul parce que le 3 avril dañuy dem ci alternance bu baisse. nous sommes en train de nous battre pour que cette alternance am nous allons le faire ça avec intelligence Macky Sall mënul dugg suñu biir jaxase ñu parce que liñu gëm ñun te ñun ñëpp toogee ko moy li limu mëna mu ñimu andal mënu ko géree ñi tok fi. soxlawul ci mom lenn pour di survivre ba ngay dund fi ci réew mi ñi ngi santaat la presse di leen ñaan jeego bu ñu teg dañu bëgg di leen gis suñu wet ngeen ñi jottalil message bii ñu war a joxe ñun toogatuñu d'ailleurs maa ngi wax sax sama mbokk yi laaj na fan yi di ñëw kenn ku ne gàddu sa benn mat matelas ñu xool la xewoon place Tahrir ñu reprendre ko fii benn guddi boo xam dañuy toog ne ko da dem wala duñu fi jóge donc maa ngi sant ñëpp di leen gërëm a ngeen jëf